mbokk yi ku ne xam ni roy di nuroog piir li ma yor ci sama loxo jarul làcce warga maam jaaru buso borom poroxaan nekk fii ci dakar cap amitié tubaar fa kàll la bàyyee ñu ak warga wi dama ni warga maam jaaru buso bii ak noo mënti mel soo dul naan ataaya sax ñëwal ndax am bi nga xamante ni mooy bu diggu doom bi yor bi nga xamante ni mooy bu léger bi yor bi nga xamante ni mooy sadam tubaar fa kàll la bu dee bu foo rengay wut ñëwal sadam baa ngi koor gaa ngi nii moo ñu gunge ñun ci suñu weeru koor soo lekkee te bàyyi bëggoo mu te warees jëlal warga bi seen numéro téléphone 544 61 67 544 61 67 warga maam jaara daal amul morom. agence immobilière Imolux nekk ci rond point Concorde seen alimentation générale kër Serigne Mansour Sy borom dara ji nekk ci rond point ak librairie papeterie ties distribution tg rambi bi nekk Ndiouga Sok ñoo série

waaye yii xale yi di def nit ñi di góor di dugg di génn. Mm-hmm. ngay dem ak a dikk man daal loolu gënaloo. dëgg la gars yi nag yi dañuy naxaate. waaw loolu xale yu góor yi léegi amuñu njëriñ ñun la amul njëriñ. booy wut da ngay wut ci paa yu mel ni man. da may ñaanal rek jeune boo fare. <laughs> Ah, eh, ñaanal naa la sa bopp. ñaanal ñaanal eh, ba papa bu ma ko waxati nag abi nag déglul dama lay wax nag. neexul ba neexul waaye li may sentir ci sama xol di ko yëg dinaa la ko wax tey. yow mi waaw abi man dama japp sa l'amour dang ma nop dama japp ba ci lol sax ba ci lol abi li de lu bes la ci man yalla ko def yalla ko def ci man may am yeg yeg ci yow est ce yeg nga len lolou mo ko beug beug na aw xam nga sam dana la jantal pa Wow. man pucho boy la la tuddé cio puccion pucho boy aw la la tuddé abi ki mom fokk ma def ci dara da ngay dem marché. damay ndëkki. yaaral ca Mbàkke. Mbàkke. waaw borom ginaar yi. jënd fay ginaar suqi soo saaf sàq mi seeñu. waaye li gën a bari. ma yow jaral nga ma lu ëpp loolu xoolal ma ni. ñu koy meng mengal ci teg ci kër gi. déggoo ma de dama ni. yow loo nam. waaw dama koy teg ci gaas togg ko ba mu ñor ma yekkal la ko maa wax ni ba leneen ñëw. aw parfa jox la ci ginaar yi aw. mbay. waaw Ami. waaw woowal sama. bàjjan nga mu woowaale ñing ngeen ñëw fan yii de toogoo moom hmm? man fan yii toogoo xanaa damaa ñu gëj woon marché sant hmm. salaamaaleykum waaw jàmm la jàmm la rek bàjjan toog leen baax na toogal dañoo a. maa ngi jéggalu de ngeen baal ma. Mm-hmm. ma bëgg a commencer nag ci gërëm samay waajur surtout sama yaay nii. Mm-hmm. nga xam ni jur na ma fa ma war a jure. Mm-hmm. yar ma am lu mu def ci man ba fu ma dem suba mën naa fàttu ndax nag bi ma màggee ba tur lu bëri ci laa ko xam jërëjëf maa sa wax waaye yow defe naa ni sañoo mel ne nu dul nii sañoo génn foofu waaw yaay nag am na waaye baay am na bala nga koo xam sa baay di fo sax muulu la bu dalee sa kaw du baax waaw. papa waaw. ñoom maa doog rek waaye wax ci yëpp loolu taxu koo jóg. Mm. ndax nag bàjjen mm. damaa bëgg. gërëm sa borom kër bi. Hmm. ndax ñu ngi mi ku baax la. ndax boo dee kilifa. ñëw ci kër jël fa kilifa muy sa soxna. Hmm. nga dem ba mu yàgg xool doom ja ne danga koy jël pour takk ko def ko ñaareel muy wujjeeg bàjjanam kilifa gu baax nga. tonton ñu ngi dama xëy di dem marché. mu dab ma ci mbedd. Hmm. ne def maa nopp. xaaj lépp dina ñeenti junni nag moo ma ko jox. nii la la. indi. ne ma naa ko doolee dépense. indi te ñuy àndandoo ci pet di gisee. koo xam ne kenn du ko yëg. mais kii daf daf maa nokk. indi ak ah, saful. yu ab yaa mën a fen dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk yow nii nga mën a fen. Hmm. yow ab yi man. Ah. xamoon nga ni dina kalaate. Mhm. do aw dina kalaté kalaate ma tass ak mom ci buntu bi ah. mu ne ma xana tonto ñi ngi gisoo man ni ma nekk ci kër gi est ce que mas ngaa gis góor set ci ma fi ma ne ko haram mu ne ma dama son dama bëggoon ñu ñuy génn ci pet <laughs> waaw du ko ci ci pet ah, ah. yow nga wax ma lolu ah man la gëp man so soxla dara man na la may waye affaire du yoy mu ne ma doxaalante di di seeg sa bàjjan ba fa pare wal bëgg di doxaalante yow Nopi, yow xam man ngay sa yow wax a gaaw nga abi abi yow da ngaa lamb ba tax amoo ko dug rek teel puga wujjanteeg moom pour sa bàcc eh, yow loolu yow kii deful dara tey sa gémmi ñaar sa gémmi amul kii maa wax mu naan ma man doom ju baax sañ ma jure fa yow da nga xam fu la sa ndey gi eh, lay baayu Carrefour la bu baayu Carrefour la doomu àngal lay jur. Oh. eh bu jooy laa wax bu jooy laa wax waaw ñii ñu bon lañu kii ngir bu bon lañu xeet bu bon a ngi nii yow amoo koy ñëw di bëgg a nangu jëkkëram pour sa bàjjan abi yow a wax nga dëgg da ngaa lamb looloo tax nag da nga ay waay ay waay ji le may xanaan sama ndey ba ma juree yow kii xam nga fan la la juree kii xam nga fan nga la juree ah. ah doomu àngal la doomu àngal la doomu àngal la te doomu àngal xoolal man yow dinaa la tiim ñoom man yow man dinaa la tiim ñoom. yàlla dina àtte lii. man dinaa la tiim Habib. ajana yàlla àtte. Habib man dinaa la tiim. yow Habib dama ko wax dama ne. waaw baayu xoolal. ñi ngi dalal baayu àngal doomu Carrefour lay jur. Eh. te yow baayu àngal nga. kon doomu Carrefour ngay jur. loolu nag yaa ngi bëgg a. waaw ñun doo suñu kii. doomu Carrefour ngay jur laa maa ko wax. bëgg a tax sama sëy bi joxal ñu dem laa. mais yow joxal ñu dem. <laughs> ñeenti junni yi cocktail nan la wulli ba nga nooy nga ni sëy bi neex na. waaw buñ la sosal sëy bi day gën a neex. ñëwal dem jërëjëf. ñëwal dem waay yow ñëwal dem. man dinaa tëj tëj ñëwal dem. ñëwal dem ñëwal dem. dem leen rek. na fi dox ba dox na fi dox ba nekkum géej. ndax ay ci par rek ngay seetaan. ñu si lay ñu sa baax yow demal. looy tëj ba nga nooy bu ngay wëbati ko waatee ànd. loolu nga mees. gis nga bu mu la bett. gis nga weeru mag bii ku ci rusul la def lenn ah ku ci rusul suñu borom mbaa nga am lenn loo xam bu def ci lenn li toujours suñu borom suñu borom xale bu góor la de loo def tey rek dala koy woon moo waral suñu borom weer ko nii yaa ngi mais kii kii ëppal na